Abdoulaye Ndiaye ñu ngi lay nuyu. yow nekkoon nga député nekk itam nekk membre fondateur bu Alliance pour la République Ousmane Sonko war a def daanaka déclaration de politique générale am euh, ca fële nga xam ni itam moo di ca pencum ndaw réew ma mais déjà rek euh, comme ni ko constitution bi mayee Moustapha Sarré moom moo daal di annoncé ni mel mais polémique dafa am ci li jëm ci coowal motion de censure euh, lan mooy sa réaction bi njëkk yow mi nga xam ni itam nekkoon pencum ndaw réew ma. xam nga ñoom dafa am benn contexte bi ñu bi ñu jëlee réew mi mooy majorité wu amul majorité assemblée nationale donc il y a une cohabitation de fait boo nekkee dans une situation comme ça yow nga nekk le porte-parole du gouvernement ñu invité la ci benn émission yow ngay def ay menaces à peine voilées mais loolu yow lan la ngay recherché. yow dafa mel yaa ngi sa poste opposant bi léegi yow yaay gérer léegi yow kay lépp loo xam ne luy jëmale kanam luy luy civiliser les rapports yow ci la war a bokk aujourd'hui est-ce que dégg nga ba léegi un un député du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mu jël kàddu wax ne ñun nous sommes nous sommes nous allons nous allons pour une motion de censure amul est-ce que dégg député wala un un un cadre wala un responsable du parti jóg gi ngañ gouvernement bi actuellement amul donc ñun bàyyi dañu ñu liggéey yow bu ñu waxee loolu nga ne ah man de maa ngi invité groupe parlementaire ñu xam ne ñun réew mi ñëpp ñu ñoo ko bokk lii kat bu bu demee njëriñu réew mi la ñu ngi leen di invité à plus de con à plus de d' attention par rapport ak li premier ministre wax surtout bu leen waxtaan am ngeen di waxtaan mais boo bëggee taxaw fi di menacé moo menacé yow kay bu euh, da nga leen jaay bu bëggee de censure a loolu loo moo leen ko may loo mais donc lii moo lay wan ne opposition du du du du du du. fàttali ne atum deux mille vingt deux euh, coalition Yewwi Askan Wi tenté woon du mel noonu waaw waaw xam nga xam nga yàlla yàlla yàlla baax la yàlla dafa juste gis nga man ma gis ne ci yéeg ñii mooy que pendant des années ils ont fait croire des choses def ay promesses yuy jeex. décrire régime Macky Sall loolu la ñuy wax ni yàlla nañu ne kaay la ngeen jëloon léegi nag jëlee réew loolu bi ñu doon wax nañ ko wane nañ ko jëfee nit ñu ngi taxaw di leen seetaan bu ñu deful lu ñu warul def ñu ne leen lii war nañ ko def bu ñu defee lu baax ñu fekk leen mais yow ñu jël ay dans bonne disposition toog di leen seetaan nga ñëw di leen menace di créer un débat là où il ne fallait pas c'est vrai ah. le premier ministre te man est-ce que sax le gars là il est en phase avec le président Diomaye parce que Diomaye a reçu le président de l'Assemblée nationale lañ waxtaan xaw ma ko xaw ma ko keneen xamu ko mais donc il faudrait que les gens comprennent que un état c'est du sérieux du caaxaan cette posture opposant yooyu nañ xam ne nekkatuñ ci ñoom ñooy gérer réew bi nañ bàyyi nañu wàññi wax bi nañu wàññi wax bi ils sont obligés avec le groupe parlementaire parce que loolu mooy njëriñu réew mi te loolu du yëfi ñàkk fayda boo ko defee du yëfi ñàkk fayda il faut ñoom ñu comprendre ko noonu mais bu ñu bëggee nekk dans une logique de confrontation mais Sénégal qui va perdre ah, ci loolu euh, déjà ñu ngi wax remandat dissolution assemblée nationale euh, est-ce que jàpp nga nii mooy li war tas ko. non moment bi ñu loolu baaxul ci ñoom am sax baaxul ci ñoom. septembre la gars am deux ans boo tasee septembre assemblée nationale le mois d'octobre ci la ñuy def examen du budget national léegi boo ko tasee xam nga budget bi doo ko doo ko doo ko def donc di nga def ay élections yu bees entre décembre ak janvier waaw boo ko defee janvier certainement kon secteur euh, mars fin mars la la nouvelle assemblée bi di installé waaw bu boobaa en tout cas yow foo jëlee xaalis boo liggéeyee Sénégal euh, sa budget euh, budget bi nan lay nan lay nan euh, nan nan lay demee kañ examen bi bi donc c'est un non amul amul njëriñ yow boo nekkee situation bi wool institution bi nga waxtaan ak ñoom surtout des Sénégalais ay nit ñu am xel ak xalaat ñoo fa nekk ay nit yu gëm Sénégal ñoo fa nekk. nga toog waxtaan ñoom xam nañ lu baax ak lu baax boo àndee lu baax dañuy tàkk boo àndee leneen ñu ne la lii kat baaxul def amendement et eh, et eh, ñu avancé mais boo buggee ñëw bugg a imposer joxal ci discours yi mais gars yi dañuy gis seen bopp donc cohabitation moo war a bu a am de moo war a am il faut que nit ñi waxtaan bu nekkee ne ñoom bugg nañ liggéey laa wax mais bu nekkee dans une logique de confrontation yaakaar ne buñ ay jëf mais ku est que amul ku nekk foo jàpp yéen bu ngeen jàppee ni yéen a ëpp assemblée nationale ñoom jàpp nañ itam ñoo yor gouvernement à tout moment mun nañ tas. mais boo ko tasee ñoom di leen njëriñ xam nga bu nekkoon ne ay nga bu nekkoon ne affaire bi janvier la ah janvier la. Mhm. donc amoon nga largement le temps. d'abord sax d'abord boo ko tasee est-ce que ñoom am na fu ñu jëlee xaalis xaalis boobu doo parce que boo deful RFR boo deful RFR RFR boo ko deful. waaw yooyu yooyu yow nan nga nan nga yaakaar xaalis boobu tamit doo defar élection te RFR doo ko def ak boo ko def actuellement avec avec configuration bi bi bi actuelle boo koy defee. LFR. Hmm. maanaam loolu du projet yi wax bii ñu bëgg a def yëpp il faut une une loi rectificative des finances. waaw delluwaat. parce que parce que dañuy jël par exemple boo jëlee tey ministre des sports ministre de la culture ministre de la dañ ko boole mais budget yi il faut nga fusionner la. juste. il faut yow lan nga bëgg a def di def mais comme def mais ça il faut une loi rectificative te ni cette loi rectificative tant que amul mënoo changé lenn lenn lenn si biir. boobaa day métti alors comme léegi. léegi comme ministère boobu nan la liggéey ministre mu ngi liggéey waaw léegi boo nekkee si yàlla bu mel noonu boo négocier négocier négocier yaay. kon faaw Bokk Yaakaar. loolu moo tax Benno comprendre ko. ñu noppi yombalal leen affaire bi ne leen on est là mais c'est le président de la République après pour Diomaye avant son installation moo ko invité au palais waxtaan ak moom visité loo ko palais et récemment aux Nations Unies kii à Washington di xew foofu avec les villes si le président n'était pas dans de bonnes dispositions loolu dina ko def vraiment dina ko def. Hmm, doy na waar. te président nag c'est le président de notre parti. d'accord bu ñaanee gars yi gars yi mun nañu dawal am na yeneen yi donc ñoom ñoo bëgg a créer ay problème fu mu amul. mais problème amu fi euh, ci beneen. amu fi oui problème amu fi problème amul. Mm-hmm, d' accord tu as parfaitement raison problème amul. d' accord donc donc moom son discours d'hier il est passé complètement à la mu waroon wax rek moo ne ah gars yi ngeen def nekk assemblée yàlla leen fekk ñun yàlla moo ñu jox nguur ñun on est nous sommes tous des Sénégal il faut qu'on nous ànd ensemble devant des questions d'intérêt majeur nañ jiital Sénégal liggéey liggéey di liggéey par la voie diplomatique day liggéey loolu loolu c'est entre les personnes loolu moo bu fa am ci àdduna ñii de dañu wax wax wax Abdou Ablaye dañu doon dégg micro ku ne xoolal ci guddi ñoom ñaar di gisee waxtaan pour Sénégal loolu moo téye nit donc faut que ñu comprendre état bi jaaxal te ñu bàyyi seen discours populiste yi ça dina yóbbu benn. d' accord euh, beneen bi mooy benn Bokk Yaakaar déjà URD e quitté na coalition bi ci biir mais coalition bi xanaa dafa am problème wala déggoo amatul seen biir wala li ngeen nekk opposition moo tax. non non amul problème yi le 24 mars la xanaa nag ñun dañu sonn nag il faut ñu noppale ko il faut ñu toog xoolaat suñu bopp ni ñu doon doxalee il faut ñu toog mu xool ko waxtaan waxtaanee ko. loolu mënul nekk mais aussi il faut ñun aussi ñu may leen tuuti temps léegi nag ku ci ñun ñun affaire ñu war a ñu la former ñun lan moo tax lii ak tous les réalisations ñu def pourquoi ñu ñàkk pouvoir lan moo waroon dox te doxul lan lañ waroon def te defuñ ko lu def te waruñ ko woon def on on réorganise notre part on va vers de nouvelles bases maintenant ce qui est sûr et te loolu ñëpp nangu nañ ko Benno Yaakaar atteindre na ay limites parce que Benno Bokk Yaakaar Macky Sall moo gagné ñu jàppale ko mu ne on va gouverner ensemble on va gérer ensemble on a fait douze ans Macky jeexal na ay ñaari mandat il est parti léegi nag d'autres alliances vont se créer peut-être sous forme sous d'autres euh, formats loolu après la ma déglu ñu déglu Guèye léegi nag yooyu bu mu amee bu am na après nag yooyu vous allez comprendre. mais fi mu nekk nii dañu may gars yi tout un délai de grâce ñu ñu jàng def apprentissage xam état ñu koy gérer xam ñu xam ne dañ doon wax ci biti ak bu ñuy biir li gis bokkul xam nga et boo seetee ñoom seen gouvernement bi à part Mary Teuw Niane gisuma ku ci mos a siégé boo xoolee même seen communiqué conseil des ministres ñu koy élaboré ni koy élaboré xool des fois seen yenn sorti am na nekk passation de service rek ngay wax ne kenn xamul ay discours philosophiques ces gens-là ils sont dans une phase d'apprentissage et c'est tout à fait normal ñoom nag nañu nangu loolu xam ne dañuy doog a ñëw comme ñu population bi ñun aussi les acteurs nangu nañ leen loolu ñoom aussi nañ ab honnêteté nangu loolu te liggéey te bàyyi wax ci la priorité aujourd'hui c'est d'abord euh, euh, euh, la tabaski qui approche il y a l'hivernage et il y a l'achat de la vie loolu loolu mooy léegi nag révision des comptes yooyu yi waa ah, reddition des comptes rapport yi voilà yooyu noonu yëpp ay mbir la yi nga xam ni yëkkati nañ ko. mais non mais mais sëñ am nga li am solo boo ne 94 milliards dañ ko détourné waxal Sénégalais yi ndax 94 milliards yi trésor public génne na xaalis bu ko génnee kan la ko jox boo càmbalee ne ñooñu warul ko am mais nga nga traduire leen en loolu dafa jar toog jarul toog jarul toog yi ñuy wax nii yëpp. xoolal ñu jox ay rapports yu ñu def yu yu nekk en ligne depuis benn weer à part IGE IGE président de la république rek rek rek rek moo am moom lañ koy envoyé kese à part kenn mënu ko de léegi nag président Diomaye bu bëggee dafa bëgg lépp leer na def un de déclassification ñu ne ko fang en ligne ñu ñu xam li kaw yëpp mais tant que loolu mais nag bu ko tëri xam ne dañuy actuellement ils rencontrent euh, des des énormes difficultés ci ci préoccupation yi taxaw nii léegi ñu bëgg ñu andi ay révision des comptes yooyu waxi caaxaan la ñuy si dimbali. d'accord loolu yàlla nekk ay ndamam ay mécanisme état dafa am ay mécanisme yoo xam ne da nga ko prévoir si situation amee tu n'as même pas besoin de ñu defal la nga war a def ñu jeex léegi nag résultat ba léegi nag résultat bi ah jiw ne jiw naxoon nañu ko nii nekk na ko lii la def nii la def nii la avec les preuves mais yow dañ la jox un vrai rapport le le gars bi ñu wax il n'a même pas donné les informations complémentaires nga jëlee ko ne lekk na xaalis alors alors que bokk en réalité le rapport final da da da da da da da da da koy da koy da koy satal. d'accord donc réew mi c'est-à-dire que gis nga le vrai débat. waaw dans ce pays la. mooy. mooy jikko d'accord. Sasa devait être le premier chantier du nouveau gouvernement. Le président devait s'adresser à la population. biir bi di ko yàqu dañ léegi nan lañ war a mën a def ba di koy jaaduwaat. d'accord yaakaar naa ne ñoom ñu ngi koy bàyyi xel. Mhm. ah bàyyi bu ñu ko bàyyi xel li ñuy def di ko def. d'accord. Eh, te on va vers des lendemains assez difficiles. ku mhm. xam état. ku mhm. xam conjoncture internationale.